def nañ fi man def naa fi vingt 21 ans am na ñu fi def 25 ans amuñu papier de salaire amuñu retraite amuñu familiar ñu toog ne feebar bi dafa am na ñu toog ñu toog ñu fay ñu deux mois boobu ba léegi fayaatuñu ci préparation tabaski bi la ñu woo ne fay ñu leen salaire dafa am lu ñu leen di jox nit ku nekk nag am nga ax ndax ñun ñëpp borom njaboot lañu kon suñu toogee amuñu papier de salaire. ñaata at 21 ans nga def 25 ans ñi def 25 26 ans amuñu papier de salaire da fay a doy war dégg nga tay retraite ci jigéen dafa gaaw te ñu nek borom am lu war tax ñun ñu pour ku dimbali ku jappalé aussi parce que gouvernement Macky Sall war na xam des ñun ay citoyen war nañu mëna ñu am papier de salaire xam fiñu tek suñu mon mi moo mon mon moom syndicat ñu dem ba ci syndicat bi demul ñu dem perfection de travail la wax ñu dem fofu déposer dossier yi légui dafa am dossier yo xam dañ ko war fournir pour de pour yóbbu ko sunu àq rek lañuy laaj te yalla rek tax ndax ñun ñep borom lañu amna ñu ci fay am ñu ci fayul luyaas du wa am ñu ci am kër au moins dinañ am moyen bi waaye ñi nga xam ne ñooy fay da fay metti ci ñun aussi presque rek dañu déggee ne amitié lañ koy defar te ñun ñuy employé yi nek fi ñun yeguñu ko problème Thank you.